chers internautes de Lou'Bess TV j'espère que vous allez bien ñu ngi leen nuyu bu baax a baax di kontaan seen fidélité bi di ànd ak ñun saa su ne tey tam ñun ay ndaanaan ñu nekk nag fi nga xamante ne moom mooy këri foot këri foot xam nga ne amoon na kenn am na kenn ki nga xamante ne nag moom ñëwoon na fi nga xamante ne moom fii ne ci plateau bi mooy Pape Abdourahmane Pape maa ngi lay nuyu maa ngi lay nuyu maa ngi lay ziar di nuyu sama mbokk mi Ismaïla di nuyu aussi ñëpp ñu ñuy seetaan di nuyu waa Kër di foot foofu c'est c'est une famille di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo Baba Dieng moom l'administrateur ak euh, Massar mi nga xamante ne moom mooy le président mais aussi di nuyu aussi sama beneen groupe WhatsApp euh, boo xamante ne boobu aussi c'est 100 pour cent football xam nga muy les footballogues nekk pikin di nuyu gaa yëpp foofu tamit di jël nuyoo bi di ko teg euh, ci loxo Serigne Mbacke Faye nga xamante ni mooy suñu doyen nekk suñu papa. ak euh, Abdoulaye Sall moom it suñu grand la et puis moo ñu yar daal donc voilà yaakaar naa ne bu ko tegee si loxo ñooñu rek euh, dina wàcc ba ci ñëpp incha allah di rafetlu invitation bi et puis aussi di wax ni c'est toujours un plaisir de venir discuter de foot. xam naa ne moom Eric moom yaa ngi yaa ngi ci yoon bi de kontaan nga de. waaw bon li xale yi naan zonzé instant yi maa ngi zonzé. ah maanaam <laughs> Ismaïla maa ngi la nuyu moom moom jarul may wax sax xam naa ne moom moom man moom ñoo bokk kër gi Momo di kontaan ci invitation bu baax di nuyu waa ko di foot di ko dalee ci président bi Baba ak les autres di kontaan ci invitation bu baax. mercredi ah sama biteel ndox moom laa teg minute bu nekk ma naan te du ko yëg. Ah. waaw metti woon na trop mais c'est grand rêve. Mm. Mm-hmm. dinañ ci ñëwaat kon donc gis ngeen ne tey dañuy waxtaanee li nga xamante ne nag moom mooy actu Ligue des Champions gis ngeen dama invité ki nga xamante ne moom mooy supporter Paris Saint-Germain mooy Pape Abdourahmane yaakaar ki nga xamante nag moom mooy Ismaïla waaye ñun dañoo daw yàlla baax na dinañ tas fii nii dimanche wala lundi rek bon donc dañ koy commencé rek Pape ci li nga xamante ne moom mooy ci huitième de finale yi gisoon nañ équipe bi nga ne moom mooy Bayern moom mooy huitième de finale dafa tasante kooku moom mooy Lazio Lazio dóor ko aller bi 1 bi à 0 retour bi Bayern dóor ko 3 mhm. tey jii nii yow nan nga gisee équipe Bayern boobu noonu ñaari visage dafa championnat ak Ligue des champions waaw xam nga tey euh, le Bayern Munich est une équipe euh, intermittente maanaam cest à que euh, fi nga ko dul foogee rek mën na fa ñëw def vraiment exploit mais à chaque fois fi ñu koy xaaree bon on a l'impression que ni foofu li muy faral di échouer e-, moo ren donc voilà donc loolu lan mooy problème bi maanaam cest à xam nga bu fekkee na nga am entraîneur boo xamante ne ay zoram ils l'ont abandonné te loolu moo am c'est-à-dire que leur coach là yi nga xamante ne ay leader lañ ci équipe bi mooy bon pour ne pas les citer et tout ça mooy ñi nga xamante ni ay allemand lañ Neuer ñooñu ils l'ont lâché donc voilà léegi nag moom bon loolu nekkoon problème bi te aussi mu coïncider ak période boo xamante ni euh, période de crise quoi xam nga club bi mag yi nag ñoom bëgguñu di wax crise mais période boobu période de crise la woon donc looloo tax bi ñu demee Lazio au match aller te jouer contre une équipe italienne c' est très difficile bon gis nañ ni d' habitude sax score bi du bëri voilà donc 1-0 yi 1-0 yi lu leen arrangé woon la parce que gis nañ ni kat xam nañ bu ñëwee au retour ils avaient beaucoup de chance de passer donc euh, après ñoom bi ñu waxtaanee seen biir boo seetloo ci match yu mujj yi da nga gis ni Müller match bi lépp lay see quatre vingt dix minutes kon ça veut dire que ñoom ñaar ñu commencé waxtaan et puis juboo muy am seen seen diggante quoi ndax gëm naa ne Bayern bu ñu wee rek mën nañ am lu bëri. waar yàlla woo waxuma leen dara de mais dama ne Bayern bu ñu jubóowee rek mën nañu am lu bëri. Real dinañ fa boo xam naa da ngaa tiit rek parce que supporter Paris da ngay ragal tasante ak ki xamante ne moom mooy Real final mu gagné la euh, Ismaïla ñu gis ne nag équipe bi xamante ne moom mooy Bayern mu déplacé wu dem fi nga xamante ne moom mooy Lazio Lazio gagné ko 1 à que yow match bi bu mu jeexee yaakaaroon nga ne Bayern dina qualifié dañ lay dugal benn taxaw seen camp ba match bi jeex loo joué joué joué ñoom bloc bas la ñu def arrière taxaw ale bi 1-0 boobu noonu résultat bu baax loolu ci italien mais au ma retour ñëpp ñoom ñoo la gën a xam lu leen fay fekk biir Allemagne ndax bu ñu ñëwee ba ñu tëj barrière yi Allemagne yi zëngal gars yi kii score dina dina dina ko jël fleuve score fleuve la ñu jël parce que compétition bi dafa am ñu ko mën. ay Real City léegi ñëw na ci quatre grands yi Real City Paris ak benn outsider boo xam ne day ñëw complété quatre grands yi xam nga Bayern mën na nekk ci méforme en championnat mais en Ligue des champions beneen visage yi comme lu sama copain bi wax léegi papa boo xoolee image bi Bayern li wane championnat ak bi ñu wane di Deschamps bi ñu du benn boo xoolee yenn cadre yu nekk Bayern dañoo xaw a abandonné seen coach même temps est passé maa ngi dégg benn rumeur Kimmich dafa am ak problème ak Tuchel xam ak yeneen ak yeneen yoo xam ne allemand moo demee noonu bu demee bu bëggatul la si équipe am dina def pexe bu nekk pour jëlee ak tamit retour blessure Manuel Neuer yooyu yëpp tamit day xaw changé lu bari bari bari si équipe mais Bayern moom day resté Bayern waaw. léegi fi nga xamante ne nag moom mooy Real Madrid mu commencé yow ñu gis ne moom tamit match aller bi moom dafa déplacé wu ba léegi nii foofu noonu biiru Allemagne muy équipe boobu nga xamante mooy Leipzig aller bi mu gagné ko 1 bi à 0 retour bi ñoom ñaar ñu def match nul yow nan nga jàngatee match aller bi d' match aller bi ni ma koy jàngatee mooy lépp si seen chance si match aller bi match aller bi parce que boo xoolee. toute la rencontre moom ñoo ko déroulé boo recevoir defal la tout ba am résultat bu baax sa biir ale sa biir terrain mais retour bi day metti ñoom ñoo gënoon xam na moo leen xaar ñoo gënoon xam na moo leen xaar retour parce que match aller ak yi dafa nekk match yoo xam ne ça su joue dans lay détails détails yooyu noonu lañ perte boo xoolee am nañ fa ñaata occasion de but war a tuer match bi seen attaquant yi di vaciller di vaciller di vaciller ba Real jëlee fa ab victoire moo tax match retour day metti rek mais dañuy wàcc. dañuy ci détails yooyu noonu dinañ ci ñëwaat ndax xam naa ne moom Real am na détails yu mu def ba qualifié li nga xamante moom mooy ci demi-finale bi Pape. ñu mhm. gis ne Real moom ak équipe yi nga xam ne moom mooy Leipzig retour bi biir Santiago Real naroon naa xooju. ci bon foofu moom da ngay gis ni réal bon par expérience moo tax Real passé quoi ndax bu ñu waxante dëgg la euh, le match aller ak le match retour yëpp le Real a souffert le Real a grave souffert souffert wax dëgg yàlla ndax tey bon da ngay gis ne comme ni ko Ismaël waxee rek c'est-à-dire que Leipzig bon manque d'expérience moo leen perte le match bi waaw manque d'expérience parce que am na ay occasion xamante ni il faut les mettre il faut les concrétiser léegi nag ñoom ñoom nag ils ont donc voilà léegi nag raté yooyu ñuy rate ndax da ngay gis ni Real amul sax occasion yaakaar naa euh, au match aller Brahim moo dugal te bii bi c'est un ex un exploit individuel. cest à fee la jógee lem lem lem enroulé. bii bi kenn xaaru koon donc voilà au match retour da ngay xam ne non le Real Madrid va passer. da gis ni le Real souffre mais au bout ils vont passer donc voilà foofu moom je pense que par manque d'expérience euh, Leipzig. loolu moo ko handicapé daal mu yomb trop nag ci Real mu yomb trop ci Real au match waaw mu yomb trop ci Real au match retour ñëw rek bu ñu paree ci li nga xamante moom mooy match Real bi ñu dugg rek ci ki nga xamante ne moom mooy Manchester City ak Copenhague Manchester City premier kii nii foofu moom amul surprise ndax dafa déplacé wu tam fi nga xamante ne moom mooy biir Copenhague mu door ko aller bi 3 buts bi tam Manchester City ko doon continuer ci def bu mag la ndax parce que ils ont fait le job au match aller match bi si ngay dem dóor waaji lu bëri pour mën a noppalu match retour bi tu comprends donc voilà gis nañ ni match aller bi ñoom dañoo profité dugal seen bi alors que pourtant Copenhague ren ils ont une belle équipe ren ils ont fait une bonne campagne en Ligue des Champions teg yàlla même man man naa leen au préliminaire foofu tamit vraiment ay match yu baax lañ def ñëw aussi ñu qualifié match de poule bon ñu def ay résultats yu baax génn huitième de finale malheureusement ils sont au monde xam naa ne waa Real moom duñ nangu loolu mais actuellement quoi la ñuy wax factuellement. donc voilà léegi foofu euh, ñu gis ni City a fait le job au match donc entre temps amoon na ay match championnat yu mu waroon si mu concentré wu ci donc moo tax au match retour aussi tamit mu gën a ci yomb. ba léegi ma des si yow rek. Uh-huh. yow ki nga xamante moom mooy Paris Saint-Germain xam naa moom mooy naa la mooy pare am nga xamante ne bi ko 2 bi ko biir xam nga yow mi sax soo fàttalikoo euh, au match aller bon laata match aller bi bon biñ defee tirage bi woo nga ma woo nga ma téléphone xam nga no Real Sociedad équipe bu mag la instant yi ñu toll nii parce que liggéey bu ñuy def en championnat man na newoon naa lii bëri bu koy ak mbaam la c'est-à-dire que yàgg-yàgg Paris mooy gagné donc voilà mais nag il ne faut pas oublier que nii la Real Sociedad ren en en en Ligue des Champions moom moo jël premier ci kaw Inter mhm. cest à que moo jël premier ci kaw Inter moo jël premier ci kaw Benfica Benfica bi nga xamante ni barki démb Marseille xaw na rey Marseille bon nekkul ay pic pour waa Marseille mais ñoom moom wax dëgg yàlla li yàlla xam doy na mais en tout cas euh, je que ni euh, la Real Sociedad au mois d' octobre bi gars yi di tirage boobu wax dëgg yàlla xëy na moo gën a abordable parce que ci ñu jël premier yëpp ñëpp liñ doon ñaan mooy am Real Sociedad et ñaan bi dafa mel ni ci man la mujjee tombé donc voilà léegi tey au match aller bu ñu ñëwee joué nañ nañ vingt cinq minutes jàpp trente minutes yoo xamante ne ils nous ont étouffé ak seen militaires xam nga les Mendes les kii là les Mendes les euh, Merino et tout ça ils nous ont fait beaucoup de mal mais après da ngay gis ni expérience mooy waaw waaw mooy joué quoi donc voilà et puis même score à l'aller qu'au deux zéro deux zéro comme ni ko xale di waxee deux mi-temps mu tas. ah <laughs> kon dañuy ba léegi foofu noonu ci Espagne xam naa ne moom kooku temps bi bëriwul ñu enchaîner huitième de finale doo ko dem ci quart de finale bi euh, ak gis na tamit beneen équipe euh, espagnole bi moom tamit dafa tasawa ak ki nga moom mooy Inter Milan aller bi ñu déplacé dem fi moom mooy biir Inter Inter gagné na 1 but à bi ñu ñëw ñu ligganti ko gagné 2 buts à 1 par série match boobu match de guerrier la ko parce que ñaari équipe yëpp boo xoolee système italien rek lañu joué comme Diego Simeone moom moom 4 cinq 1 la lay tegal arrière taxaw kanam boo xoolee benn attaquant lay am boo xam ne à chaque fois day passe de gauche à droite di marqué mu arrière yenn cinq milieu terrain bi si ginnaaw comme système italien bi la rek match boobu match guerrier la boo xoolee Atlético année yi mujj dem téye jeu bi léegi dafa changé léegi boo xoolee seen jeu bi yëpp ñu ngi commencé di dem nànk-nànk comprendre match aller bi Inter def na lu gën a difficile gagné par un but à zéro lu gën a difficile à la de toute dernière minute par Arnautovic retour bi ñoom ñu ñëwoon pour jéem a ray match bi jéem a taxaw seen camp jéem a jouer loolu espagnol du leen ko ci bàyyi léegi ñu jouer ak ñoom. ñu dem ak ñoom prolongation man demee ak ñoom prolongation boo xoolee poro fu ñu dem ba am équipe à domicile mooy mooy mooy ëpp favori mooy gën a nekk favori Atlético foofu moom day mën a jàll facilement ndax boo xoolee jour Inter yi au cours du match bu ñuy gën a continuer di dem dañuy gën a épuisé dañuy gën a épuisé boo xoolee foofu moom Atlético moom mooy nekk favori te day jàll carrément di ko mooy favorite day jàll carrément ñu desaat ba léegi foofu noonu ci Espagne euh, ñu résumé comment nga résumé ñu ko rek diggante match bi nga Naples ak ki nga moom mooy Barça match aller bi ñoom nul retour bi après ki nga moom mooy Naples ñëw fi nga moom mooy biir Barça Barça gañ ko 3 buts à 1 tey jii nan nga gisee équipe Barça boobu noonu ak performance bu mu def commencé euh, match de poule ba fu mu toogee noonu les napolitains ñoom ay italien na mais ñoom seen jeu basé aussi ay défendre ñoom boo xoolee seen équipe bi dafa xaw a équilibré ban demee à l'aller Barça def na lu plus difficile gën a difficile jëlee fa match nul au retour moom ñoom ñëpp italien ñoo gënoo xam ne foofu bu ñu fa jógee ak ndam parce que Barça est plus fort foofu daal moom wax dëgg yàlla ban ko tirage nee naa Barça va passer. Barça va passer Pape ñu dem fi nga xamante ne Angleterre fekk foofu Arsenal moom tamit mu amoon ki nga xamante moom FC Porto match aller bi Porto dóor ko retour bi moom tam mu dóor ñu dem euh, prolongation nan nga gisee match boobu noonu tamit. waaw bon bon nekkoon na match bu neex nekkoon na match bu neex parce que muy Porto muy Arsenal ñoom ñëpp dañ nekk ay équipes yoo xamante ni joueuse parce que ay équipe la yu joué quoi c'est-à-dire que boo xoolee Arteta ak euh, Conceição c'est-à-dire que ñoom ay entraîneur lañ yu prôné le beau jeu donc man match boobu ils nous ont toutes les deux équipes m'ont régalé wax dëgg yàlla au match aller gis nañu sax boo seetloo ci fin temps yi ci la Porto dugal waaw mu nekkoon un match serré. mais aussi au match retour tamit on s'est rendu compte que ni euh, ils nous ont servi le même match c'est-à-dire que dañoo ñëw match bi seerwaat mais au finish Arsenal mën mujjee égaliser si mujjee dem série tiro bi te comme ni ko la waxee rek à chaque fois saa boo demee série tiro bi c'est-à-dire équipe bi nekk à domicile mooy ëpp ay chance de passer parce que stade bi engouement bi stress bi stress bi te stress bi ci zone adverse la gën a nekk donc moo taxoon voilà te gis nañ ni Arsenal moo gën a nekk équipe mag. waaw donc voilà ils ont passé sans difficulté. Mm, Arsenal moo nekk moo gën a nekk équipe mag dañuy tëj li nga moom mooy phase huitième de finale bi ñu nga ne moom Arsenal moom moo tasoon ak nga xamante moom mooy Bayern euh, loolu la ñëw ci loolu noonu balaa ñoo ñëw rek ci équipe bi xamante moom mooy Real Madrid. Mm-hmm. ma ñëw rek ci euh, Ismaïla xam ne moom Real ak Bayern ñoom kam ñu def 2-2 retour bi mu def fee nekkee gagné ko 1 bi à ah, mais boo xoolee anglais ñoom ils sont forts à domicile rawatina seen public Arsenal ba 2-2 match aller bi man gëmoon naa ni bu demee Bayern mën na fa def dara mais boo xoolee bay xool yi moom en général seen fort yëpp tamit si côté à domicile bi la rawatina Allemagne ñoom boo xoolee. ñoo perte lu bari si seen championnat boo xoolee dix ans yu ji yëpp ñoom ñooy jël di jël di jël ñu dem ba perte championnat léegi seen appui yëpp ci Ligue des champions lañ koy def Ligue des moo tax victoire Bayern bi ak qualification Bayern bi ci Arsenal wax dëgg yàlla moo bett moo bett gisoon naa ne anglais ñëw fa kii qualifié mais comme li may wax chaque fois rek Ligue des champions moom. grand yi moom à chaque fois mi ngi te ñuy dem demi-finale wala ñuy passé quart de finale chaque année les mêmes équipes booy xool bay xool chaque année trois yi war a dem chaque fois dinañ dem benn équipe surprise tegu si léegi Pape nga résumé ñu tuuti ci Arsenal bi benn 30 secondes rek Arsenal ak Bayern bi. bon bon match Arsenal Bayern bon nekkoon euh, match bu difficile surtout au match aller au gis nañ mi ngi doon coïncider ak période bi nga xamante ni ci la Bayern na nekkee en crise en crise entre guillemets mais boobu ah, malheureusement Arsenal n'a pas su euh, exploiter sa donc voilà ils ont encaissé deux donc au match retour mën naa ne ça s'est joué à un fil à un fil benn bii lañ dugal et puis voilà et, et c'est léegi comme que loolu la ñu dem rek ci ñu desaat yow rek ñëw sa équipe bi Paris sa germain moom ak équipe bi mooy Barça. Mhm. suñu dëkkandoo yi comme ni ko gars yi di waxee. xam naa ne moom dimanche dina neex léegi yow euh, mas ale bi Barça ñëw fekk la biir sa biir dëkk dóor la 3 buts à 2 ñëpp nee nañ ni heure yi nii Paris deewati na. nga ñëw biir dëkkam far yàlla nag lu ruus ki nga xamante ne moom mooy Araujo loolu loolu gën a li nga moom mooy Paris ñu ware seen bopp ñu gagné li li nga moom mooy demi finale tey jii nii nan nga gisee rencontre aller bi ak retour parce que xam naa lu des ci temps bi nga résumé ko bon Momo merci beaucoup. waaw merci beaucoup ci question bi ma posé et je yaakaar naa ni je suis content d'entendre une question pareille ndax dama jël sama xam nga dëgg la Barça équipe mag la bon ñun sax balaa ñoo balaa ñoo am xaalis parce que ñun 2012 la ñu am xaalis ay temps championnat France ñu gisee Europa League et tout ça mais bon en 2012 bi ñu amee xaalis ñun ñun modèle Barça moom la ñu doon copier mais ñoom ñoom ñoo jékki-jékki ñu def ñu noonu Barça moo ñu def noonu de ñun mosuñu leen def noonu ñun au contraire ñun ñoom ay idole lañ si ñun ay référence mais depuis bi ñu jëlee Neymar ñoom ñu soxla Marquinhos ñu bloqué ñu ñu soxla Verratti ñu bloqué bon bon bref maanaam mu nekkoon ma match boo xamante ni tey euh, jouer contre le Barcelone ce n'est pas du tout facile mais man li ma jaaxal mooy au match aller ñoom ils ont joué contre nature parce que keroog Paris moo téye bal bi Barça mu doon ay passes longues ndax xam nañ ni suñu axe bi booy bi xale la. xam nga léegi bu Lewandowski di génn di génn di jëli bale bi moom dafay topp. su ko mm. defee am Rafinha buy plongé. Mm. foofu la ñu naxee ah. mais su ce que nekkul yow euh, classement bu ku si teg match aller bi loolu moo tax ngeen perte match bi. bon waaw non au match aller lui syndiqué a fauté parce que moom lui syndiqué dafa dafa nekk une personne vraiment arrogante mm. et vraiment hautaine donc moom moom moom moom ay xalaatu footballam c'est autre chose mais bon. mais bon bu ñu duggee ci biir match bi bi ñu encaissé les trois bi pourtant malgré ça on a joué door nañ deux balles bi ci montant et tout ça on a bien joué ma loolu tax man musuma ragal ni Paris va se qualifier bu ngeen fàttaliku Ismaïla jour match retour bi newoon naa leen maanaam ni ma leeree ni Paris day qualifier ren euh, demi-finale waa sama àjjana su ma ko leeree noonu ma ma dee tey non que dama gëwoon ni Paris day qualifier xam pourquoi et puis boobu ñuy wax. maam ruse bi nekkul Araujo moo romb nit dóor ko de maanaam ruse bi ñun on l'a provoqué ruse bi c' est une passe en profondeur boo xamante ni su bàyyi woon bal bi booy bi mën na ko dugal comme mën na ko raté mais mais en tout cas. mais en tout cas. <laughs> mais en tout cas waay si si waay si si waay si si non man mais bon euh, boobu cest mën na ko dugal comme mën na ko raté mm. mais en tout cas cest à on l'a provoqué on l'a provoqué et puis on a joué ñoom ils ont joué contre nature di tëmbal rek di tëmbal di daw di tëmbal di daw Barça bu demee bay tëmbal di daw kon xam nga ni le monde est à l'envers donc voilà ñu ñoroon doon ñu ñun ñoo doon créé ñun ñoo doon ci joué à toi à moi di joué di joué ci xal space yi maanaam cest ci intervalle yi di joué mais ñoom ils n'ont pas joué ils n'ont pas joué ils ont joué contre nature donc voilà et puis man je pense que ni le, le score pouvait même être beaucoup plus corsé waroon nañ la mën a dóor sept wala huit. yow nga fekk di doomu jaamu biir dëkkam yow. Eh, sept wala huit loolu yàggul yàggul noonu noonu sax nga bëgg leen dóoraat huit. mais xaaral ma wax la benn affaire Nou Camp samay stade la les deux derniers matchs yi ma joué Nou Camp huit deux laa ko dóor. et yaakaar naa ne huit deux nekk na score boo xamante ni ça me rappelle quelque deux. donc kon xam naa lu ñu desee ci temps bi bëriwul parce que heure yi nii 25 minutes lañ ñu may ñu ngi ci 22 léegi yow nga dama bëgg nga résumé rek nga defal ma benn résumé rek concernant match City bi ak ki nga xamante ne moom mooy Real Madrid xam naa ñu jaaree noonu tëjee parce que heure yi lu ñu desee ci temps bi ñu ma ko signalé. Mhm. waaw xam nga City moom xoolee ba 3 ans yu mujj yëpp si je ne me Real dafa jàlloon. non moom moo éliminé. ma éliminé première année bi. Ah. non première année bi maa ko éliminé. daaw mu éliminé. ren ma éliminé. booy xool booy xool trois ans yi mujj yëpp Real ak City dinañ daje ci tirage des champions. daaw Ancelotti mu toog la woon Real Madrid ci tactique am ci dëgër boppam booy xool booy xool dafa am yoo xam ne ak li ñu koy gérer. yaa ngi daje coach boo xam ne mooy meilleur coach au monde yor meilleure équipe essence yi nii moo gën a taxaw si àdduna daaw mu def erreur au match retour ba éliminer Real erreur boobu noonu mu defoon daaw day bañ mu répercuté ñu indiwaat ñu dajawaat ren ban dajee ren ban dawalee tuuti. Real jël but par erreur du gardien premier but du Real jël man mun ma ko baal góol bi parce que à cinquante mètres si sa cage nga defar sa barrage à chaque fois jour góol dangay am njort bu rafet ñaaw njort si ci football ñu jël ay but yu bett Real ñëw revenir ba mu ne ko deux buts à cours du match bi City mun ñu jouer ak moom te duñ encaissé ay but mu nekk match bu neexoon ma nekk match bu bëri but retour bi ñu war a xaar métti parce que mi ngi ñëw teere City Real préparé woon noonu yooyu yëpp daaw li leen daloo nan dem bañ ñu talaat leen rek ñu ñëw jouer bloc ba bloc bas boobu ñu tegal City Real mu tombé. ñu joué bëre Real dugal ko Real bu ko bii boobu mu ko teel jëlal moo tax match bi amul sport bu bari ndax City day topp si bal bi Real topp di défendre di défendre di défendre. xam nga ne. waaw moom ñun pré prévoir nañ loolu yëpp moom foofu ku fa ñëw il faut nga souffrir il boo souffrir doo am la mm-hmm. boo xoolee bay xool City génn vingt match mm-hmm. à domicile di des champions. Mhm. amul defet amul defet amul defet 2018 je crois que la mujjee am defet biir terrain mu nekkoon match bu metti Lyon boo Fernand Mendy mii nii di jouer latéral gauche mi woon Lyon moo ko gagné éliminé ko par bi Real ñoom xamoon na ni loolu la ñuy xamoon nañ ko ñu jouer coach bi bu baax ñu souffert ñu dem tiro bi ba match bi te tesee quinze minutes man à tout moment nee naa City mi day égaliser parce que quatre-vingt-dix minutes mënoo ko jouer ak système boobu ba mu égaliser nag am naa yaakaar ni Real mën na ko tenir deux quinze minutes yi ci prolongation pour mën a dem tiro bi ba arbitre sifflé pour ñu dem ci robi man xamoon naa ne Real va passer ndax ñoom seen gardien bi il n'est pas fort en tir au but Ederson te Real yor na ay tireurs yoo xam ne à chaque fois bu ñuy ñëw di tirer dañuy marqué waaw man demee daal tir au but man xam naa ne Real va passer passé moo tax nag mu tasante ak ki nga xamante ne moom mooy euh, Bayern Munich match aller bi nag euh, Real bi nga xamante ne moom moo war dem biir euh, mooy Dortmund mooy Paris Saint-Germain la Pape ma bàyyi la rek nga tàggatoo ko nga temps jeex na. waaw ah. bon merci beaucoup Momo pour cette invitation xam nga j'ai bien été vraiment heureux xam nga je vraiment heureux de venir discuter de football avec vous xam nga ak yow moo ak sama copin copain la mm-hmm. donc voilà. man nag bon sama match contre Dortmund xam naa ne xam naa ne Dortmund mooy la favori donc voilà xam naa ni moom yaakaar naa ne moom mooy la favori mais man yàlla baax na man su ma demee ba demi-finale rek sama saison baax na. sama saison baax na du garaaw Dortmund yàlla ma door naag. kon sa saison baax na ndax egg demi-finale Ismaïla dama bàyyi la rek nga tàggatoo. waaw sama copain bi li mu wax si kaw Dortmund ñëpp xam na loolu match boo gis am na favori bu leen jël casquette favori bi ngeen jël ko bëgg ko jox Allemagne non non demi ñaari demi finaliste yi moom ñaari match demi finale yi moom ñëpp xam nañ ñaari rencontre yëpp ñan nooy favori Real mooy favori si kaw Bayern Paris mooy favori si kaw Dortmund non vu les dernières rencontres man ci dernière rencontre laa ko ak performance équipe actuelle man ci loolu laay basé wu parce man mënuma jàpp ni mu def le plus le tenant du gis naa ni lu des ci chemin équipe du ko comme ni ko a waxee rek lu des ci semaine bi yaakaar naa ne moom kenn du ko téye kon xam naa ne moom moom port la 15 la ñuy yóbbu foofu noonu donc euh, li leen di andiloon nag li nga xamante ne mooy seen actualité sportive du jour ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di kontaan seen fidélité jaa ngeen jëf.